daata daaru na nga gisee bëccëg ne bë ne bëccëg ne guddi bañ dikkee ñuy bés mosoo gis lu ma ñu laay guddi ak weexaayu bëccëg waaye bëcc eh, waaye mosoo gis bés moom te moo la gën a am nag moo tax ah, bésab la lañuy wax waxuñ bëccëgam bëccëgam sax àllam la ñuy wax bëccëgam samedi <laughs> waaye kon kon kon bëccëg xamut moom samedi ko moom bis yëpp bii nag mooy marib boo xamante ni boo ci xasee taxaw yow dootoo dootoo dootoo xoolati ay Mouhamadou Rasulullah Ibrahima Cheikh Tidiane yi déedéet ñun waxu ñooñu ñooñu ay ñooñu ay masaahir la ñuy dikk pour dañu wan rek la waaye nag moo tax bàyyi bu toggee ne laa darrahum tanaafusul bil faani is kullu maa yaraw na xéenal faani laa darrahum yàlla bolol gaa yi a tanaafusu xaccoo bil faani faani mooy lan rasol ba ma faani la wilaaya faani la xalif faani lañ is kullu maa yoroon ne ngeen di gis ni yëpp faani lu jeex lu amul sax da te kullu maa la faani kon boo di bëgg su ko jël si ngëm yàlla gi sës ko ci koo xam ne day dem yow bu kooku dañ dikk indoo mi tab la affiche bi lay wanee nekk ci rek waaye moom bu la bu mu la tarxas moo tarxas lu bëri nag ba ci suñ kër gi mi ndikkee fi ne tarxas dafa am nit ñi ne dañuy foog ne leneen dafa dikkaat waaye xàqu xàqaay xi amul changement mbokk xàqu xàqaay xi doo am changement xam nga lii nii nag maa ngi ci kenn ki nga xam moom ci ñuy xulul la waaw yàlla boo ko gis ci yonent nga ñëw waaw d'accord yonent boo ko gis jël xam nga dafa dégg dégg na ñu ngi waxtaanee ñun yooyu ci loolu euh, su ko defee waaw léegi nag Cheikh Diagne boo ko bëgg ci bàyyi waa bàyyi foo ko bëgg gis ñu ne ñu ne ñu ne ñu diw ah waaw ah waaw <laughs> yow yow xamuloon ci kooku bokk ci xàqaay xi xàqaay xi li ci bokk doo fi des <laughs> ah kooku le suñ gëmoon al xàmme luy seen ñëkkuwaay fi nekk tam la ak li ñuy wax li li li ñuy tuddee nuwaab Cheikh Tidiane li wax ne man def mu benn xalifa sama gannaaw lu mooy Aliou Arachimi bu ko waxee dem ne moom mu ne waxuma Aliou Arachimi yetu bàyyi ne waxut Aliou Arachimi Arachimi yetul la ndaxte Arachimi yetu mooy xilaaf ak Cheikh Tidiane gannaaw xilaafaam gi xilaaf du amaat ci gannaaw xilaaf googu bàyyi bàyyi xanaan fu Cheikh Tidiane ne fii laay yem xanaan dikk na nañ utaat beneen beneen te ñoom misir yi wax na wax joo xam ne daa bëgg ñu koy déglu mu ne ah xutbu doo doo doo doo xaqiq mu ne man xaqiqa la kay ñu ne xutbu bul dëgër bopp doo àq de mu ne àq xalaat sir dikk rek waaw jox ma man sama bagage moom andi dem ah dikk rek waaw jox jox ma sama bagage dem xool jël bagage am kon lu des da nga fa da kon da nga fa kii <laughs> waaw lii kon yow bu fi dëgër bopp yow bagage jàmbur yu ñu dégg ñu ko kon ñun dañoo joobale ay bagage jàmbur fii nag waroo dem ba léegi nag bagage bi moom jay la ba nga ne man la moo tax fii du paye man la du ma wax man la du ma wax moom la waaw gars yi rek la borom bagage rek la